ñoon toog nit ñi dañu woo téléphone naa ne bon pap il faut faire attention tu sais maintenant le régime là on sait jamais bon tu es mon grand petit frère. de grand responsable mais bien sûr yaa ngi dégg on a parlé des trucs on a parlé même en disant que y a même des gens yoo xam ne ils cotisaient et puis traque des biens mal acquis lu tax ñun ñu yàkkamti ko ñun parce que dañu bëgg xool kan la ñuy ak kan la dul topp parce que des gens on parlait de cotisation des gens les hmm. gens bien sûr les gens on en parlait on a mais mais je t'apprends rien parce que on a parlé de téléphone qui aura qui qui aurait <laughs> fii la ñu fekk yaa ngi ñëw ñaata yoon nga woo fi ay nit débat politique ñu taxaw ne du ñu ñëw pour deux raisons ñemewuñu woon affronter les sénégalais par rapport à la réalité bi nekkoon fii ci Macky Sall bi te ñu waroon am ngor wax ko te waxuñu ko. ñeneen ñi ñàkk ko wax ndax dañ du ñàkk dañoo amoon lu ñu représenter seen bopp naan ah xaaral ma noppi parce que man je préfère qu'on ne parle même pas de moi parce que quand euh, en Afrique on mange pas on parle pas quand on a la bouche pleine ah voilà en Afrique tu ma tu peu quand tu manges et le soir tu vas cotiser mais ñun on a décidé de ne pas le faire on a fait face. donc yow da nga yàkkamti track bi parce que jàpp nga ne ñi nga xam ne ils ont cotisé. Mm-hmm. parce que on, on en parle beaucoup hein on dit que am na ñoo xam ne ils étaient avec Macky Sall euh, ils ont cotisé de l'autre côté da jàpp ne ñooñ dañ leen di épargner. Ah, mais euh, le kii la le, le le président de la République là pourquoi il n'a pas encore déclassifié les rapports de l'IGE. am ñu mu bëgg a protéger. ah xaw ma loolu lay xaw a niróol yaa ngi dégg loolu lay xaw a niróol na ko déclassifié ñëpp gis am na ñoo xam ne wax nañ leen si ñu ngi si ñoom nëbbutuwuñ. mais lan moo ma leer ne amul ñeneen ñoo xam ne dañoo noppi te bokk ci ba léegi man xaw man je sais pas dama lay wax en toute sincérité